baal ma àkk baal naa la yal na ñu yàlla boole baal ndax jàmm na dàkk lu yàlla sàkk yàlla nañ ko buur bi yàlla defal am naa du ñàkk mës naa la tooñ waay na nga ma ko jéggal baal ma àkk baal naa la àkk yal na ñu yàlla boole Mariate alla folla e fai sama folla ಮಂತ್ಮದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಜರ ಮನ್ ಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯವ್ವ ಕಾಯ್ yaay jaas daa mel ni ah, kër gi donte maa ngi fi am xam nga location nga fi. yéex kaa xam sax parce que dem bu ma la xëccee sànni la fa la soo xam ne yow fi nga dëkk kër gi nag daa am ay yu ñu defee. bi quoi waaw léegi bi waaw gàlle bi. léegi première chose bi njëkk mooy kër gi dafa fiy tere xeesal góor guy xeesal ba ko fiy tere te sax su ma la xoolee nii xam naa ne yow doo xeesal ndax yow yaa ngi ñuul kuk <laughs> yow vrai africain nga loolu moom sama xol na sedd dafa ko fiy tere beneen bi mooy sirab saab góor gu daal maa ngi nii ba bëri doole loolu dama koy bañ ci kër gi góor du sinab dangay jiram bu ko istati benen bi ma bañ moy boy sa mom bi bopp bi war naa see def fexé de bopp bi dañ ko wat après est ce que yaa moy may dégg. maa lay déggé waxal. defal ndak dama tege sama chat doo def ndak man ko imposé da ngay xam ma dagal la troisième fois bi mooy góor guy rocc tuñ cim gor jigéen góor guy rocc tuñ jàppee wala gor dara ba koy tere fii ci kër gi yaa ngi muy dégg gis nga non maa lay dégg waaw nit daal da war a ko def yow booy di iri maanaam di jël ay booy dina dugg ci nekk tim loolu tim xam nga dama koy bañ ay booy di iri dugg ci kër dama koy waaw hmm. di iri ci booy rek muy gaaw kay nga hmm. dugg si ala yaay di mbëkkante quoi ba arrêté nga ci weeru koor bi sewul ramadan bi non wàññi naa tuuti da nga war a bàyyi waa ji daa koy waa ji nekk feebar jugu fa bàyyi nga war a def ah, eh, ma de baal baal ma tayu ma ko baal ma danga ma da xool doon laa bëgg a xam lan la baal ma tayu ma ko tayu ma dafa baax si moom. dama lay laaj ba xam da ngay gérer fii ci koñ bi ba xam da nga fiy doxaane wala doo fi doxaane ci koñ bi fii nii. area bii nii waaw da nga gérer ci koñ bi rek di ko topp. mais man fépp laay dugg. quartier beeg kër geeg a yow. yëpp samay area bi waaw. sama maa ngi dem. waaw bi nag après nañ waxtaan. mais bi. nangu naa la ko mu la saa mais dinaa ko bañ. ay. Saala yaa ndeer ndeeroo ndeeroo ndeeroo su ma xoolal man da ma neex quoi si wala dama lay gis quoi sama xol bi di di bégee xoolal yow rek nag laa gis xoolal sama xol bi di neex. su ma la gisee xoolal nga dox roo moom rek xool lu ma naqari woon daf may neex. dama bëgg jàmm man bu enak ay nax sax neex na yow boo dee Buku jam bëgg jàmm da ngay fen bu bëggee jàmm bëggoo jàmm juga. Palma, yal na ñu yàlla boole lu yàlla sàkk yàlla na ko buur bi yàlla defal am du ñàkk mës naa la tooñ waay na nga ma ko jéggal yenn saay saytaane man ma ma def